salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yu la référence TV seen émission Actu Sport mooy ñëw nii nag di tàmbali Actu Sport nag euh, comme vous le savez c'est l'émission qui parle de actualité l'actualité sportive de la semaine Actu Sport nag euh, ñu ñu fàttali leen adresse su kër gi muy émettons de l'immeuble Yaay Joor et de l'estudio Yaay Joor premier étage loolu mooy euh, programme mooy adresse su kër gi bu ñu ci ci loolu nag mbokk yi tey dama am invité bu mag a mag a mag ñu koy. woowee Fat Chérif Fat Chérif nag ku ko xam saltige nga ko xamee mu ngi dëkk këri kaw vraiment ñu bëri ràññee nañ ko ci basket bi ak tamit ci handball bi Fat Chérif ziar naa la. maa ngi dolli ziar. naka euh, activité yi. waaw ça va ça va ñu ngi góorgóorlu di taxale. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax. waaw maa sant baax a baax. waaw Fat Chérif ñu lay fàttali nag ne la yow yaay première jigéen bu ñu invité fii ci émission Actu Sport. c'est la première fois jigéen ñëw fii ñu bëggoon na Fatou Chérif démarrer si li nga xam ne mooy sa démarrage carrière maanaam carrière bi kañ nga ko tàmbali ak tamit euh, handball euh, basket bi di moins nan la la dikkee. waaw ah, basket bi mu ngi ma dikkee sama mag moo doon basket ñu koy wax kura. benn mhm. jour ma dem terrain di leen seetaan. Mhm. ni may seetaanee école Matasek. d'accord école Matasek ni may seetaanee ni gis leen ñuy jouer. Mhm. ma xëy suba. muy dem ma solo topp ko foo jëm ma nekk damay dem entraînement. mu ne ma Loyane ma ne li ngay def laay dem defe après bi ma demee ma commencé di dem premier jour bi ma demee le lendemain ñoom ñu dem basket ba. Mhm. ma fekkaat leen teene ñuy entraîné may entraîné après mbiida mhm. dem si yàlla Mbida moo doon suñu entraîneur. mu ne ma yow war nga mën a basket ndax ñi yow njool nga affaire yooyu. ci mhm. laa commencé nag affaire yi intéressé ma ma nekk si nekk si. sama première année mu defal ma licence ma def petite catégorie. mu defal ma licence. entraîné ma def minime. Mhm. senior. Mhm. minime cadette junior ba mhm. senior. sama première année nag. minime. cadette laa ko basket mais depuis ma yéeg cadette. la petite catégorie basketuma ko senior direct lañ ma yóbbu. d' accord d' accord ah Fatou li tax nga brûler les étapes dafa mel ni amoon nga benn benn kii bu nekk ci yow benn talent bu ne ci yow. waaw li tax def taxawaalu woo foofu dem direct senior. waaw waaw waaw dëgg na loolu moom xam naa may yàlla la moom. Ah, ak ak sama fit ak gëm-gëm bi rek dama ñëw rek gis ñii di baske rek ma ne kut kookut man damay def ñi li ñu di def. tout à far yàlla jàpp si daal. tout à fait mm. léegi dañ lay laaj ba xam saltige rek nga mas a basket wala am na yeneen club. waaw saltige rek laa mas a am na yeneen club jia contacté woon na ma bopp ak jaraaf yëpp. Mhm. mais tonto dem si yàlla tonto aas. Mhm. saa yu ma demee damay dem entraîné ba ñu ne tey la la ñuy arrêté sur signature yi. Mhm. mu waxaat ma ba ma wàññeekuwaat ñëw signé waat saltige. kon saltige bi mooy sa club bu kër daal waaw waaw d' accord léegi Fatou bëggoon nañ xam waaw mas nga dem sélection nationale waaw wala déet waaw mais petite catégorie petite catégorie waaw dem naa minime as cadette as junior mais mhm. senior moom mhm. yàlla dafa def nag après mhm. handball bi dañ doon dem tournoi monté motuñu ñu ñëw jël si ñu defaral ñu licence nag depuis boobu nag anbal bi nag. Mhm. jaxase sama lépp léegi basket bi lu ñu wax sax man leen anbal ba. anbal xam naa anbal bi moo xaw a yàq sama carrière basket tuuti. tout à fait tout à fait léegi anbal bi hiver yan ane nga ci nga ciy dugg parce que da nga doon basket ba mu yàgg nga dem ci anbal bi. vers yan année nga ci commencé dugg ak lan moo la dugal ci handball bi parce que basket nga njëkkee. waaw dama doon basket. Mhm. waaw dama doon basket ñoom dañ doon dem tournoi monté pour yéeg première division. tout mhm. ñu ñëw terrain mhm. dem ñu ñëw ñu ne dañ leen defaral licence ñu ne ñun xamuñu lii. ñu ne boo jugee si handball. da ngay am facilité basket boo si jugee da ngay am facilité ñu ñëw ñu defaral licence ñu bi Thiès. mu ñëw. lim sii si man boole ma ci. waaw mu ne ma léegi yow da ngay taxaw si kanam rek. Mhm. bal bu ñu paasee di ko léegi bu ñu taxaw si kanam bu ñu paasee bal dama koy tagga su ma lee ba si si six mètres yi dama leen wax ñëw leen dóor. ñu ñëw dóor ñuy def noonu ba yàlla def nag équipe bi yéeg. waaw bi yéegee nag. Mhm. mu continuer comme am naa licence handball am licence basket. Mhm. damay entraîner basket. 4 heures. waaw damay entraîner ba handball. 4 heures ba 19 ba dis dix neuf heures. ma tëb ma jéggi gir yi. dem basket ba entraîné dix neuf heures ba vingt deux heures. doo ko ñibbi nag may def ñaar yëpp bu samedi jotee ñaari mat day handball day basket handball di joué. Mm-hmm. damay joué basket ba mu jeex. Mm-hmm. su ma paree ñu gaareel ñu taxi man ak Collé Marie Pierre. Mm-hmm. suñu paree ñu fomp si biir oto bi. dama joué waat beneen match le même jour ñaari match lañ doon joué par samedi. par jour d' accord d' mais noonu ngeen ko doon alterner. yombul woon tamit si jigéen c'est vrai que ñun nga joué fii basket ak basket ni mu méttee. <laughs> nga wëlbatiku demaat def handball. def dugg si oto delluwaat dem faraxasu rek daal di dem fomp daal di dem solaat beneen mayo ñëwaat ci. Ah. ba xam loolu indil daawu leen indil ay impact physique daawu leen sonal ay fatigue yu ah, demee noonu. xam nga rek boo nekkee xale moom doo yëg dara. mais boo dee ba si kanam nga koy yëg. parce que basket. 40 minutes yi ma lay wax. Mhm. basket 40 minutes. waaw 40 yëpp duñ ko génn si terrain bi. te suñ demee handball ba. 60 mhm. minutes la 60 minutes yëpp duñ ko génn. faatu loolu bari woon na de. ëppoon na ko. te règlement waxul loolu. ah waxul loolu koy kay. war nga toog 2 jours 3 doo ko jouer mais ñoom duñ ko xam. Mhm. suñu ñëwee dañuy mel ni ku jóge suñu kër. parce que mhm. ci oto bi lañuy ñuy simmeekoo yëpp. Mhm. changé sol yére handball bi mel ni ku jógee suñu kër. moom mais waaw noonu lay demee. mais loolu dirigeant yi ñoo ko xamoon di ko def wala yéen yéen àndoon ak seen jeunesse seen fugg seen bëgg ko rek di ko def. waaw Chérif Tall mooy suñu entraîneur handball. xamoon na ne yéen a ngi basket. di di xamoon na bañ na ko ba bu ñu heure basket bi. bu dee ah. quatre heures la ñuy basket. Ah. day day wax moo jóob ma jóob dem. Ah. heure bi nga xam ne. ñun bu ñu paree dinañ leen mën a fekkaat foofu ba ñu mën a jouer. tout à fait tout à ah mu ngi leen doon def loolu métti de ay risques yoo xam yéen it ngeen topp amour bi rek bëgg bi. waaw waaw bëgg bi rek. waaw dañ ko topp continuer bëgg ko. léegi ah, handball bi moom mosu leen ci dem sélection wala. non équipe nationale par exemple. non mosuma si dem nag. Mhm. mosuma ci dem sélection mais am na ci ñu daan dem mais mosuma si dem sélection mais yàlla daf def. Mhm. deux mille deux depuis deux mille dix. Mhm. ba dix ans yi ñu tegle. Mhm. coupe bu ñu fi teg dañ koy jël. da ngeen koy jël c'est vrai. coupe bu ñu fi teg dañ dem nañ coupe d'Afrique de clubs. avant mhm. bi ñu dem coupe d'Afrique de clubs dafa fekk. ma joué final ba pare après bi may joué final dama gaañu. c'est vrai ma sax match bi dafa jeex rek ma mel ni nekkatuma fi. après si laa feebar ñu nekk dugg nekk hôpital Thiaroye dugg comment ñu ma génnee noonu. ñoom bi ñu ñëwee ñoom ñu dem jouer ji coupe d' afrique bi ñibbisi mhm. dem nañ ba quart de finale mhm. ñu ñibbisee ñëw mhm. ñu demaat jouer ko ma continuer ma ñu ne ma da ngay bàyyi ma ne duma waay si laa continuer jouer waat ba ñu dem ci Gabon coupe d' afrique des clubs saltige yëpp saltige la yëpp dafa tombé ci feebar bi deew ma d'accord parce que chaque jour sepital boo doon wax danaan man benn place rek leeragum muy place Fatou Chérif benn place leeragu pour war a dem kon daal dafa mel ni jour bu figure bu kii nga woon bu emblématique boo xam ne nii pièce maîtresse nga boo xam ne neexu woon woon a remplacer. comme ni ko coach bi waxee. waaw tam itam loolu bi mu la arrivé noonu dafa mel ni loolu moo xaw a moo gàttal sa carrière. waaw parce que après si loolu gisaatuñ la gisaatuñ la. mais Fatou tam xaw ma daan nañ la ko ñemee waxam déet man boobu xale laa mais bu ma la ma daan gis 15 heures ngay dem ni takku genouillère yi solu tolloo woon nii sax de. déedéet meloo woon nii tamit aussi. waaw loolu moom moom caractère bi nga amoon sax. <laughs> waaw caractère bi waaw loolu moom. am waaw ree sax daawoo ko def lu bari parce que man xamoon naa la. def defi këri kaw. du may bu may dox nekk nii. du ma mhm. ree mais ba mu si mbooloo kenn du ngepp may amee may amee waxtaan mais su ma du man. mais yàlla moo def loolu sama kanam soo ma gisee ma ñëw da nga naan dafa fas kanam. dëgg la dëgg la fekk fasuma sama kanam yàlla moo ma bindee noonu. tout à fait tout à fait mais fu ma taxaw moom kenn du ngepp. dëgg la dëgg la farce nga léegi Fatou loolu bi mu arrivier tamit après tegaatuñ si ay année nga basket wala boobu ba tey rek da nga mm, di bàyyi lépp. waaw ah, non basket bi. Mhm. après dafa dem handball bi dafa dem ba. comme mhm. basket dañuy basket duñu dem final duñu dem seen waaw te basket bi dañ daan am na boo xam ne dañu doon joué ci Casamance. Mhm. ñu war a joué final handball. tonton As ne ma dañ léegi. dañ leen da ngeen di dem bu ngeen joué pare ñu jël leen avion ngeen ñëw ma ne ko xalaatuma ko. man. Mhm. fii laay toog final bi suba bu mu da nga yóbbu Casamance ñu dem. Mhm. du ñu ñëwee doo ñu dugal avion mu ne da dem leen. ñu wax wax man ma dem jaral ñu ñëw gaare oto ma dugg suñu kër si balcon bi. tafu si miir bi. pour bañ a dem. après Kole ak Maripé ñoo dem bi ñu demee bi ñu joué dañu joué mu taw. ñu renvoyé at match bi ba le lendemain. Mhm. le matin. ñu joué match bi mu jëlal leen avion ñu ñëw joué waat final bi. handball hmm? bi daal moo sama carrière daal mën naa ne handball bi moo ko yàq. yow yow sa carrière bi moo handball bee ko yàq. waaw c'est vrai c'est vrai tey léegi Fatou nan ngay gisee basket bi fi mu toll muy ci jigéen ñi que ci góor ñi surtout mën interroger la ci jigéen ñi. parce que tamit depuis ay depuis ay certain temps boo xamante ni toog nañ fi dañ coupe d'Afrique Sénégal da ka daan tegle ay mm-hmm. mais léegi toog nañ ba ci ñoom Aya Traoré ñoo fi mujjee jël coupe bi ñoom euh, yaa Jojo Diouf ñoom voilà mais génération boobu bi mu bàyyee dañoo amaat problème te sax dañ leen doon xas ci début tournoi bi je me rappelle fii ci jam ñaajo hmm. non ay maire lañ duñ kii mais ñoo mujj remporter affaire bi lan moo problème mu basket bi da ngeen amatul relève bu leen remplacer dem remporter coupe bi wala nu mu demee noonu waaw moom mooy comme li ma la Sénégal moom hmm. dañu gaaw dañu mën a xaste waay da ngay jouer tout xam nga da ngay teel a jouer teel nekk si terrain comme ñu léegi si terrain ne mag nga fekk doo mag tout ñooñu bi ñuy dem dañ leen mag la te bi ñu leen ñi ñuy wax xale. Mhm. dóor yu metti lañ leen dóor. ñoo leen mën. fuuf ba tey nii ñoom ñeneen xam nga mhm. sélection bi ñu mujjee def. waaw wala dañ leen fi bàyyi. yóbbu xale yi. waaw lu xale yi def. non defuñu dara. waaw mag ñooñu ñuy wax. waaw ñoom ayaa ñoo dem jëli ko bi. waaw ñoom. Mhm. jom gi si ñoom. ak fulla gi ne si ñoom. génération bu bees bi meluñu noonu. meluñu noonu c'est ñoom daal. mu ngi noonu daal ñoom nañ basket mu jeex fàtt nañ ne dañ doon mm-hmm. basket mais ñooñu ngay gañe ñu toog di jooy. c'est vrai waaw yéen da ngeen ko bëggoon. deux jours di jooy du ñu lekk du naan ñoom si saa si la ñuy commencé. di de jël seen portable. fàtte nañ ko nañ mm-hmm. ko. waaw mais tamit entraîneur yi tamit changement entraîneur. waaw entraîneur boo indi. Mm-hmm. am na joueuse am. dëgg la. bu doon man maay joué. su amee joueuse am ñu bokk parce que bu ñëwee kooku lay yóbbu. da la fiy bàyyi toujours toujours changement yi moo koy indi entraîneur bu ñëw day indi groupe am tout à fait kenn mënu si dara day indi gudubam loolu nag mooy dem di dem di dem ba. yëf yi di wàññeeku. nga ne kii fi nekkoon. Mhm. xaaral ma jëlee ko indi sama bos. moom mhm. mooy mooy tax équipe yu bari du ñu demati léegi. tout à fait da nga laal point bu important parce que loolu noonu. dafa paralyser loo basketu jigéen ñi non seulement. Mhm. dafa paralyser basketu góor ñi. ma commencé ko ci daam yi jigéen ñi. parce que boobu tey boo seetloo dañ naan euh, bon Cheikh Sarr ñëwul yóbbu wala Adidas ñëw ku nekk indi nañ la fi ci ñaari côté yëpp mais du dox comme li nga wax parce que ñooñu génération boobu ñu doon xeeb même presse bi sax ñu leen doon xas si lañ bokk. mais bi ñu jëlee coupe bi dañoo tontu. expliqué carrément ne ñun maire yi ñoo fi indi coupe bi kon ay mair lañ. mais basket tam dafa xaw a spécial mën nga dem ba yàlla def nga jaboot téewul di basket. parce que ñoom ñëpp amoon nañ ay doom comme yow comme keneen. Hmm. te loolu écourté wul seen carrière loolu tam dafa mel ni jigéen ñi jàmbaar lañ ci côté boobu. waaw loolu moom am na. waaw ay jàmbaar lañ moom parce que ñoom ñëpp koo si gis bi ñuy dem. Mhm. yor nañ seen jëkkër bàyyi nañ doom. am na dañ yóbbaale seen doom tout mhm. te bi ñu demee. Mhm. dañu basket. moom si jigéen ñi si góor ñi. ci góor ñi à chaque fois alors entre basket. na góor ñi actuellement. entraîneur bi ñu indi. su yoree équipe bi tuuti commencé dox. bu subaa. problème yi si seen biir la ñoom. d'accord ñu indi ay problème indiwaat keneen kooku bu ñëwee day commencer à zéro. tout à fait te loolu day wàññi lu bare. tout à fait dafa mel ni nag euh, bi nga xamee ni président fédération bu basket bi dañ ko changé muy euh, Baba Tandian. Hmm. boobu ba tey dañuy chuté. waaw parce que si liñ ko xam ne moom lañ ko wàccee texte la. petite catégorie mooy di de 17 ans lañ ne ñooñu dañ dañ leen defaraloon ay licence licence yi am problème. léegi waa ji ko defar ba pare léegi kaaf moom nekkul di kii règlement bi mooy dañuy dañuy disqualifier non seulement président bi dañ koy wàcce mm-hmm. moom ci loolu ci lañ ko wàccee fal Babacar Ndiaye mais bu depuis moom ni mu bëggee basket ak amour beeg li mu ci am moom baaba Tandian defe naa bàyyi woon ko fi doon na gën néew ma euh, Babacar Babacar Ndiaye néew ma ba fa bon quoi mais kële dafa amoon amouru basket jël xaalisam lépp di ko si def bokkul woon mais si la basket bi na commencé di chuter boobu ba tey dama gis ay chute rek barki démb équipe nationale bi dem na fële ci sixième fenêtre bi fële ca euh, Égypte hmm. dañ leen éliminé te joueurs yi bari gis naa ne ñëwuñu góor gi si Dieng ñëwul yeneen joueurs yi mag yi ay Ndour ñëwuñu yeneen joueurs yi nga xam Mouhamed Faye yeneen joueurs yi nga xam moom lañ yaakaaroon dëgg-dëgg kenn ñëwu ci ah, mooy comme ni nga ko waxee rek hmm. ba Tandian daf fi ne hmm. di yëf yi di dem. Mhm. taañaa day jàpp da ko bëggoon trop da ko bëgg. Mhm. di si def xaalisam. tout à fait di jàppale équipe roi ren. Mhm. bi fi tànjaa nekkee. roi ren boo nekkee da ngay ñafe pour nekk roi wala ren. da nga ba caabi kër la lay jox. jox la oto. jox la xaalis bore. c'est ay frigo meuble yëpp. tout à fait équipe ñun bi ñuy dem tournoi monté. deuxième division. équipe bu nekk. six cent mille xam nga sept mille la la jox. Ah, tu boo dëkkee si région yi nga ñëw fii mu loger mais cette fois ci avec cent mille nga demee. ñaar équipe bu war a dem tournoi monté. Mhm. ak cent mille franc. Mhm. ak play bi ni méttee. waaw nga war a dem loolu. Mhm. nekk fa une semaine. ak cent mille franc la fédération bu bees bi. loolu lañ joxe mënu laa yor. waxuma baaxu ñu waxuma baax. mais nag tànjaa moom bi mu fi nekkee moom. kenn waxatu ko macha allah. macha allah. lu waay soxla da nga am lépp mais ñii daal ba ñu ñëwee ba léegi. mooy loolu problème rek. ay entraîneur bii. Mhm. lu tax mu bàyyi. Mhm. ba ñu indi ku bees yi. ay bi ko man TFM laa toog di la seetaan. ñu mhm. mu ne moom si rumeur la dégg ne dàq nañ ko mais waxaguñ ko ko. waaw loolu loolu wax loolu la wax. dàq nañ ko mais waxaguñ waxaguñ ko ko tout à loolu la dégg na ko mais mi ngi toog di leen. xaar te toog bi mu ñëwee. xoolal ba fan la dem. ay joueurs la jëli moom moo paasal boppam. dañ ñoom ñoo ko jox paas mu dem. wuri wóori ay joueurs indi leen. Mm-hmm. fan lañ dem dem lañ. amuñu dara amuñu dara. waaw premier bi 30 points d'écart la leen Soudan Soudan du Sud moo gën moo njëkk a gagné Sénégal. Ah, ñu joué waat Tunisie dóor leen. rek lañ gagné. Cameroun rek lañ gagné naan dañuy xaar meilleur. non xaaruñu dara. duñ dem duñ dem. duñ dem équipe bi qualifié kay Cap Vert sa dem na. waaw boo mënul daal da ngay bàyyi ki mën. mooy yoon. mooy yor yow munoo. Mhm. waxuma munul sax. Mhm, mhm. kii da ko bëgg. non non dafa bokkul ak Baba Tandia. man wàccu Baba Tandia musuma ci xam nga daloon lañu ci football bi ak ndemu si yàlla si Sissouri. maanaam football buy sport bu mën di doon buy dem ki ka ŋànk bëgg ko yor ko jig leen day dem parce que kay da jël ay moyens di ci def non seulement moom moom moom imprimerie Tandia. Ah. basket jaral ko lu nekk si àdduna. temps yi rek gis naa góor gi si jàng barki dem mu seeti ko këram. Ah. ñuy ñuy discuter. tout tout daal li nga ci wax noonu lu ci am la. wax nga tamit beneen wax ju am important. Mhm. dafa am si entraîneur bu am mhm. wërsëg. Mhm. dina entraîneur yëpp dañuy mën. mais dafa am wërsëg day am. dëgg la Tandian bi fi nekkee dafa ànd ak wërsëg. dëgg la ànd ak dooleem. dëgg la ànd ak yëpp déggoo ñëpp. tout à fait. lu tax ba léegi muy topp pour ñu joxaat ko ko. ba tey mu ngi siy topp ba léegi mu ngi siy topp. te bu ñu bu nekkoon dañ def vote ci équipe joueurs yi. Mm-hmm. wala joueurs yi. ñu def vote moom mooy. pourtant nag noonu la ñu war a di fale président fédération bu basket bi. Ah. dañu waroon dem équipe bu nekk au moins capitaine bi voté. ndax entraîneur bi. bu ñu voté woon nag moom mooy dem. waaw parce que bu ñu defoon noonu dina gën a parce que moom vraiment vraiment man maa ngi koy xool mais biñ ko li liñ ko daaneele moom defu ci dara. moom du mooy gérer ay licence moom président fédération la ah. moom couvrir basket bi la yor ah. donc cela n'a rien à ak li nga xamante ne moom lañ ko daanale loolu loolu loolu am na ah. mais basket bi tamit faatu day nekk loo xam ne dafa bëri coow mm-hmm. souvent day bëri ay coow coow da ngay gis équipe boo xam ne day dem équipe nationale mu ngi dem ñu ne waaw mais ñu demee ñëw rek buñ surtout bu ñu lajjee nag problème yi tàmbali. diw la diw la diw la maanaam loolu loolu lu yàgg ci basket la loolu loo yaakaar ne moo ko fi war a mën a jëlee. Ah, man de toujours su may wax damay wax si Sénégal laay wax. Mhm. ñun mhm. suñuy gañee mhm. du ñu gis. erreur mais buñ ñu gañee benn yoon. luñ la xamaloon jaa temps yu yàgg yàgg. tout à fait la koy sullil génn la indil la ay problème tout parce que ku nekk ba pare ku si nekk day bëgg a jiitu. ku ne day bëgg a jiitu yow soo jiituwee kii jiitu la rek da ut noo ko. Mm, écarté lu ne nga ko koy waxal. moo bare fii ci équipe yi yooyu moo tax mm. benn équipe du dem. du dem tout yow yow ki xoolal. Mm-hmm. da ngay xool beneen dëkk. journaliste yi yeneen yi. Mm-hmm. nu ñu xamee suñu joueurs yi ne fii. ñun ñëpp yi xamuñu ko bu ñuy vote pour mm-hmm. joueur bu ne fii Sénégal mm-hmm. ñun suñu journaliste ñoo koy diingat pour mu bañ a dem ñoom tubaab yi ñooy wax ci moom lu baax ba mu dem ñun suñu bopp ñun ñoo war a changer tout à fait bu ñu changer lépp lu ñu uti dañ koy am dëgg la wala jamono juñ toll football bi fu ñu yàlla ubbil tàccu nañ lu ñu uti mu am ko nañu bàyyi ñi fi ne dëgg la fi mu ne nii mu ngi dox nañu bàyyi ñëpp ñu dem lu ñu uti am ka nañu bàyyi mais ku ne yow mm. sooy uti yow ñi nga dëkkal ñoo lay yóbbu si sëriñ di la yaaxaar dëgg la dëgg la moo tax du ñu avancé duñu avancé loolu rek mooy suñu problème foofu nga laal sax foofu laa jëm parce que football bi information bi léegi la match bi léegi la jeex mm. xale yi ñu ngi fële u yi ah. ñoom dem nañ final sànq ñoo gagné euh, Tunisie 3-0 mm. xam nga mooy li nga wax boo seetloo ren coupe yi fi ñëw coupe yi fi dugg yëpp su fi dugg. Hmm. coupe d' Afrique des nations. près de 60 ans ngi ñu siy daw. sunu maam yi sunu papa yi ba sunu ba ñi mu ngi fiy doog a am 2022 lay doog a dugg fii. dëgg la CHAN bi barki démb la ñëw. mooy lion local yi. indi nañ ko. Hmm. gis nga xale yi tamit final waat nañ. waaw final waat nañ bon mooy li nga wax rek. Hmm. mooy li nga wax instant bi daal yàlla tàccu na Sénégal moo tax ma ne basket bi buñ ko jaarale woon si yoon tamit trophée yi amoon na tegle woon rek ay jamono yoo xam ne trophée day ñëw di ñëw. vraiment dañ ko jaada waa si yoon ñu ubbi li may wax chaque jour. Mhm. ñu xàcceendoo dóoyandoo boole xol yi. Mhm. lu ñu uti dañ koy am. tout à fait. mais bu kii bu jëlee xolam def fi kii jaasu di ko yàqal. lu ñu uti duñ ko am. c'est vrai sax début bi noonu la woon. te ñu bàyyi entraîneur. Mhm. bu fi Adidas yàggu fi. yàggu fi entraîneur da nga bàyyi mu yàgga fi xam ay joueur am. Mhm. mën la dugalal mhm. indi la équipe. mais bu fi defee même pas cinq mois trois mois six mois nga indi ko fi indiwaat keneen. kooku ñëwaat léegi kooku la ñuy xas. tout ku fi yàggul mënu la indil dara bàyyi ko fi mu def. ñu dem moom dina xool si ñi ne fii. bi muy dem dafa yóbbu ay booy. ah bon yuy joué Wakaam. yuy joué Astafurlah douane. douane booy bi ñu demee nganti match lañ doon def. dañ doon def yoo xam ne ñii am nekk Europe defuñu ñu defuñu ko dëgg la. àdduna yi daan nañ leen bàyyi seen xel. Mhm. ñu dem bu ñu demee. Mhm. lépp lu ñu xam dinañ ko def lu ñu leen bu ñu joué jël yàlla dina leen may ndam. dañ leen bàyyi noonu rek. tout waaw loolu nga wax moom am na solo parce que dafa dal football bi quoi dañ daan def. par exemple Sénégal dafa tolloon ci cinquante sept ans ou indépendance cinquante huit ans. Mhm. ñun ñu calculer na Sénégal am na plus de nombre d' bi mu am indépendant plus de sélectionneur am na ko ci. kon kenn mosu fi def ci ma wax la ne Aliou rek moo mos a am ñaari ñaari coupe d' Afrique. Mhm. consécutive c' est le seul entraîneur bu fi mos a am huit ans. waaw ah. Aliou mu ngi ci huit ans deux mille quinze la fi toog Alain Giresse moo dem mu ñëw. après si le peintre Augustin Senghor ñëw daal ne non pour ñu gagner foog ñu def suñu voisin yi Cameroun Égypte yeneen gars ni ñuy def nañ may entraîneur bi quatre ans cinq ans mu liggéey bu ñu ko defee noonu coupe bi du ñëw. que si tâtonnement mu dellu si ci basket bi ci euh, Adidas moom ngay wax. Mm. Adidas c'est un grand monsieur. ci mm. basket bi. France Gueye mu dañ ko fa respecté. loolu am na. dañ ko bàyyiloo contrat am indi ko fii au Sénégal. te ñun loolu yàgg nañ ko def boo ñëwee fii def benn ñun campagne rek la ñuy def. <laughs> kaan la ñuy def nga dem benn coupe d' Afrique ñu dàq la. waaw Lamine Ndiaye football bi noonu lañ ko yàqale dafa ne Coton Sport de Garoua fële ca Cameroun. Mhm. di doxal jël coupe d' Afrique. Ligue des champions ñëw fii benn match benn qualification la def ñu dàq ko. mu perte de fédération bi du la continuer di la fay. te yéen it da ngeen yor ay njaboot yor ay charge voilà yaa ma gën a xam. Mhm. léegi yooyu yëpp nit ki bu ko yoree tamit nga jékki-jékki rek limogé noonu. loolu dafa nekk na loo xam ne àq kooku sax bu la dalee est-ce bi dina gagneeti. waaw wax nga wax ji nag. voilà mooy dal ñu moo ñuy dal yu bare moo duñ jël yu bëri. tout à fait. àq chaque hmm? jour entraîneur bi de Aliou Cissé bu bu xool sénégalais chaque hmm? jour dañuy wax ne nañ ko fi jëlee. nañ ko fi jëlee te chaque jour bu demee mu ngi hmm. ñaata ñaata coupe d'Afrique la dem. deux fois la finale tegale ka. musu fi am waaw ñaata finale la tegale. dem ñaari yoon coupe du monde tegale ka. musu fi am. waaw bu ko tubaab defoon ñu way ko. yàgg na journal yëpp bind ko non Kasper Zak dem na fi c'est un grand monsieur Alain Giresse dem na adjoint équipe de France ki nga xam ne moo topp ci Didier Deschamps mu yor équipe de France instant bi muy Guy Stéphane 2006 moom moo ñu yóbbu ah, moom moo ñu yóbbu fële Tunisie dëgg la lan lañ fa jële dara quart de finale ñu dóor ñu ñu toog ñibbisi kenn ñu ne xamul dara te pourtant fi mu ne Deschamps moom mooy adjoint Deschamps équipe de France bi jël coupe du monde finale waat récemment coupe du monde kooku est-ce que kon ñàkk na xam dara. yaa ko xam dañ la dul may ngi liggéey mooy li nga wax rek. nañ la Aliou Cissé mi sa bërki démb yaa ngi dugal loolu ñu ngi juwal benn vote. dafa am benn vote bu ñuy wax best of. Mm. FIFA moo koy def jour bi gën a xarañ loolu jour FIFA la. Mm. cela n'a rien à voir ak ballon door wala leneen ak leneen. mais nee nañ bon Aliou Cissé en tant que technicien keroog seetaan na benn télé vend samedi vendredi si guddi ñu ne noonu dafa waroon a votel euh, Sadio c'est un technicien. Mhm. du ko votel Aliou kii kii ñi muy votel dañ participé coupe du monde. waaw yàlla dafa def mu gaañu. Uh-huh. ñu ne non affaire yu patriote déedéet affaire yu football affaire yu technique sax laay wax uh-huh. dañ koy awale si yoon. li war a am mooy am amul kii sama ñoo bokk dëkk amul ñoo bokk amul loolu. loolu amul ci basket bi mm. amu ci. léegi Fatou dama bëggoon tamit yoo xam yéen a ngi dox ci ginnaaw autorités yeeg maire yeeg yi demee noonu pour ñu utal leen benn espace ngeen fay entraîner parce que fi mu nekk nii ba tey bàyyi woo bàyyi woo handball bi xaw ma basket bi. non non yàlla dafa def nag ñaar yëpp maa ngi ci. Hmm. ñaar yëpp maa ngi ci. Hmm. ne nii actuellement. maire mu ngi defar terrain mm-hmm. jardin. Mm-hmm. waaw ñu ngi koy defar. ñu ngi defar jardin. Mm-hmm. léegi dégg naa avant ñuy commencé. woote nañ. ñuy gérer affaire yooyu. ku si ne ñu wax la. ni ñuy defee yow fi ngay dem. ñuy génne transport ngay dem. utal la place booy dem. ba terrain bi pare ñu joxaat leen terrain bi. ok waaw loolu baax na. waaw loolu baax na léegi bëggoon naa laa laaj tamit comme euh, waa Régie nee nañ cinq minutes moo ñu desee hmm. bëggoon naa la laaj sa digganteeg euh, maanaam euh, relation bi nga amanteeg boroom kër gi ba xam miinante ko ko maam Góor Jazaaka. waaw maam Góor sama xarit la. ah maam Góor moom sama xarit la. Mm-hmm. yàgg naa ka gis yàgg naa dem si ay kiiwam. Mm-hmm. maam Góor rek. temps yee même mhm. daawaati géej suñu terrain handball bi mhm. suñu làmp yi bi mu tàkkulee mhm. amuñu toog entraîné amuñu làmp tout à fait maam ngóor moo jox ma jóob mu dem jënd ay làmp mu defal ñu projecteurs yi gaynde la gaynde la parce que amuñu woon temps bu doy parce bu ñuy commencé cinq heures góor a jigéen waaw suñ commencé tuuti day lëndam dañuy arrêté da ko ma jóob seet jee da defaral làmp tout à fait koo kookoy maam góor jataak kon mu bàyyi sama invité mu soufflé tuuti noppalu tuuti ma joxe résultat yi waaw mbokk yi kon euh, résultat yi rek euh, démb ma koy tàmbalee fii ci réew mi ak euh, làmb lutte avec frappe ki nga xamante ne nii mooy Sa Thiès démb kii da ko daan rëg-rëg combat bi nag bëri na coow trop ndax rëg-rëg moo njëkk a daanu ci quatre appuis bu ñu jógee foofu nag waaye tamit làmb ji bala may dem foofu sax damay ci wax tuuti rek li ma ciy wax lu important mooy làmb ji dañ ci war a indi vaar parce que làmb ji toll na foofu loo jël 60 ay 100 millions di ci def teg ñetti télé ñeent CNG bi war naa góorgóorlu ci loolu CNG ñu war a defaraat seen taxawaay la xaw ma ci wan wàll bu ma jógee ci loolu damay dem ci U20 yi fële ca ca Alexandrie fële ca Égypte Sénégal nag moom léegi première demi-finale bi ca 14h la tàmbali moom moo daan ki nga xam ne mooy Tunisie 3 buts à 0 Sénégal nag kon finaalu na waaw léegi bu ñu jógee ci loolu rek dañuy wax ci huitième de finale coupe de la ligue bi nga xam ne amoon na depuis samedi. ñu tàmbalee ko fii ci stade Ngalandou Diouf Tëngéej moom moo daan US Ouakam 2 buts à 0 Casa Sport fële ca Casa moom moo daan Guédiawaye 2 buts à 1. kii di jamono Fatick moom dafa témboo ak port autonome de Dakar mais ci tiro bi jamono moom moo mujj daan Wali daan moo daan sacre cœur 2 buts à 1 Ndiambour di dóor AS Pikine 3 bisa à ki nga xam ne stade de Mbour moo daan Jàmbaar 2 buts à mooy derbi Mbour waa bi Jaraaf ak Génération Foot mujjul am dañ ko reporté ak Demba Diop ak Mbour Petite Côte wala CNEPS de Thiès reporté à une date ultérieure léegi bu ma jógee foofu rek damay dem mbokk yi ci Premier League bi fu ñu toll vingt sixième journée lañ toll Manchester United Manchester City moom dafa dóor Newcastle deux buts à zéro Arsenal daal di daan benn mu euh, trois buts à deux Aston Villa daal di dóor Crystal Palace un but a zéro Brighton daal di écraser West Ham quatre buts à zéro. Chelsea daal di daan Leeds yi 1 ak un de Kalidou Koulibaly Velvos moom moo daan ki nga xam ne mooy Tottenham 1 bi à 0 Southampton daal di daan Leicester bu Napolis Mendy 1 bi à 0 Nottingham Forest ak Everton dañ match nul deux buts partout ki nga xam ne mooy Liverpool nag dafa écrasé Manchester United 7 buts à 0 meilleur buteur ba nag euh, waaw ñu dem ci classement bi Arsenal moo am 63 points Man City am 58 points Manchester United 49 points Haaland moo ca bopp ba ba tey 27 buts ki ci topp di Harry Kane 18 buts. mbokk yi kon damay jàll ci série A italienne bi rek yi nga xam ne mooy euh, vingt cinquième journée foofu lañ toll Napoli moom dafa ñàkk ci kanamu Lazio 1 bi à 0 Monza AC daal di daan Empoli 2 bi à à 1 Atlanta Bergame ak Udinese dañ match nul 0-0 Fiorentina daal di daan Milan AC 2 bi à 1 Spezia ak Hellas Verona 0-0 lañ def Sampdoria de Gênes ak Salernitana 0-0 lañ def Inter de Milan daan Lecce 2 à 0. Roma daal di daan Juventus 1 but à 0 ca bopp ba tey Napoli moo fa ne 65 points suivi de l'Inter de Milan 50 points Lazio de Rome 48 points meilleur buteur bi kii di Victor Osimhen international nigérian 19 buts la am Lautaro Martinez 14 réalisations moom man am 12 buts moom ne Atlanta Bergame bu ma jeexalee foofu damay dem mbokk yi ci Bundesliga bi 23e journée lañ ne ñoom tam Borussia Dortmund moom moo daan Leipzig 2 buts à Union Berlin ak Cologne dañ match nul 0-0 Bayern Mönchengladbach ak Fribourg dañ match nul 0-0 Bochum dafa ñàkk ci kanamu Schalke 2 bi à 0 Augsbourg daal di daan Werder Bremen 2 bi à 1 Stuttgart ak moom dafa ñàkk ci kanamu Bayern Munich 2 bi à 1 Sadio Mané nag moom dugg na bi match bi ñu footballee ba am 63e minute Leverkusen daal di écrasé Hertha Berlin 4 bi à 1 Wolfsburg daal di dóor Francfort daal di match nul ak Francfort dimanche 2 bi partout. ca boobu ba Bayern moo fa nekk 49 points Borussia Dortmund 49 points kii di Union Berlin 44 points meilleur buteur ba di Füllkrug mu ngi am 14 buts bu ma jógee foofu rek bokk yi damay dem ci la Liga espagnole di 24e journée Real Sociedad ak Cadiz 0-0 la ñu def Getafe daal di daan Girona 3 buts à 2 Almeria ñàkk ci kanamu villa 2 buts à 2 buts à 0. di ñàkk ci kanamu Elche 1 but à 0 Atlético daal di écraser Séville 6 buts Real Valladolid daal di daan Espanyol 2 buts à 1 ki nga xam ne mooy Barcelone daal di daan Valence 1 but à 0 Rayo Vallecano moom ak Athletic dañoo match nul 0-0 Real Betis ak Real Madrid 0-0 lañu def match bu rëy la nga ki nga xam ne mooy national euh, sénégalais bi ñuy wax euh, Youssouf Sabali kon ca bopp ba Barcelone moo ca ne 62 points suivi du Real Madrid 53 points ak ki mooy Atlético 45 points. meilleur buteur boobu Robert Lewandowski la 14 buts la am ki ci topp di Karim Benzema 11 buts bu ma jógee ci loolu rek damay daal di dem ci Ligue 1 française ñu ngi ci 26e journée Nice ak Auxerre 1 but partout lañ def Paris Saint-Germain écrasé Nantes 4 buts à 2 Lens ak Lille 1 but partout 3 ak Monaco dañ match nul 2 buts partout Krépin Diatta ak Jacob joué nañ. Montpellier daal di écrasé Angers cinq à 0 Toulouse ñàkk ci kanamu Clermont 1 but à 0. Reims Stade Reims daal di dóor ki nga xam ne Ajaccio 1-0 Olympique Lyonnais ak Lorient 0-0 lañ def Stade Rennais ñàkk ci kanamu Olympique de Marseille 1-0 Strasbourg ñàkk ci kanamu Stade Brestois 1-0 ca bopp ba Paris Saint-Germain moo fa nekk 63 points suivi de l'AS Monaco 55 points ak waaw ak Marseille moo fa nekk 55 points Monaco topp ca jël ñetteelu place am 51 points. voilà Mbappé moo ne ci meilleur buteur bi 18 bi la am suivi de Ben Yedder 16 bi waaw mbokk yi loolu moo nekkoon résultat yi kon Fatou ma bàyyi la nga tàggoo ci référence TV émission bii di Actu Sport nga wax sa mot de la fin. waaw maa ngi tàggoo ñëpp waa Séné Tëngéej ñëpp maa leen di tàggu. Mhm. ci émission bi ñu ma invité woon tey. Actu Sport. Mhm. waaw. waaw di leen wax daal jërëjëf. waaw di leen wax jërëjëf. ok. waaw mbokk yi kon lii moo nekkoon Actu ki nga xam ne mooy Fat Sirif moom moo nekkoon suñu invité ñu koy sant di ko gërëm kon ba ci beneen émission incha allah jërë ngeen jëf.